Éducation sur Cine TV. Santé sur Cine TV. L'actualité sur Cine TV. Politique sur Cine TV. Sport sur Cine TV. Religion sur Cine TV. Culture sur Cine TV. C'est un qui ci Cine TV.

association ne fixé wax no ndamin jala ñaxar koy a organiser anga ka war réussir yaam ka ref une association fédératrice de 32 villages de Niakhar 32 villages kene fop a représenter ange yo ku meeb na ka war no réussir kene ɓisiidi koy bo xaye ɗi euh, manifesté a to yoona jigéen we in ndefna ndefna rew no soirée culturel ne den ndefna 31 décembre andoona yee xaye fop ka concentré oxoyo a ƴufa a ndeta ngara ndax euh, développement Ndambi Njala Niakhar développement Niakhar Niakhar Ndambi Njala Niakhar ke ta reta ino ten refu yee fexey ku andoona yee tena taxa Niakhar jofa paam a ñaaƴa teen a laya teen a fi'a teen taw bo xaye euh, i njoka njal fop i njoka njal le parrain Matar Ba njoka njal la marraine Ami Diallo son délégation da mbayna men njoka njal fop we andoona yee ka ngara yo les invités d'honneur ngara ɓisid njoka njal fop we andoona yee xay ka ndam teen a mbañ o mbaas no organisation ne kene vraiment a foga no ke andoona yee ka war a multiplier i i ɗaay teen bo njoka fop a njal laya fop ee euh,

fofo la fofo fel kam ñahar a fogam ku taxna i ƴufa projet na genoxna yo yitam in way ƴufa ke jofna ka taxna radio communautaire a genoox ñahar fo projet mayu may lakas ka andoona yee a finance eh, we a fisele eyo i mbaɗa financement kene ɓisiidu organiser a kene xaye laya nuun fop e njoko njal to ngoya fop oxu refna o ɓiƴ ñahar in way ngoya nuun kam jam njal ñahar njoko njal i i nga'a ye ya i ƴufa bo ndik ya association no jeerof na bo ndik o kiino kiin ke waagoona wo a fiyan teen surtout koy we yee den refu autorité ke Niakhar njoka njal itam accompagnement fe andoona yee ten ref les autorité administratives i mbéj ke monsieur le maire i mbéj ke uh, le sous préfet i mbéj ke uh, oxu refna surtout les les les les les dignitaires de Niakhar njoka njal chef du village andoona yee no ku i mbi'a oxe dena fa in a ñaana njoka njal no taab ke Niakhar fop profiter a ten njoka njal wa ndok no rew Euh, fo les sages de Ndami Yàlla Ñaaxar andoona yee xaye den ndefu yo wena réguler a les dans l'association maa ngi représenté sama sœur Ami Diallo mu nekk marraine soirée culturelle bi waa ndok na réew organisé ndok na réew bu ndam yi Yàlla na Ñaaxar donc maa ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal di wax ne su mënoo ñëw teewe si bés bi dina ñëw teewe si parce que dëkk ci dëkk euh, juddoo fa màggee fa yaroo fa ñu jox la cër bu toll noonu donc kontaan donc ami dafa yàgg euh, yëngatu ci développement euh, surtout développement Niakhar donc ñu ngi ci kontaan a buga vraiment culture vraiment to nange gasta bes kaga moom i andano ten i nanano ten sax parce que awa refe ye andiran i njega teen o ɗaye paax koy i seede parrainage fene i coononga vraiment i seede ten parce que i mbaanamo coono ten o faño teew yaaga xana jeg na tana litna ndaa in way njega o ɗaye a simna délégation ne yoon tona maxey simna koy ba ndok no rew injek akoye vraiment kene ko gar soɓ mene may del kaga i mbugu nda ne i mbugta i mbaag ine njegta neen xaye ka ref le 31 décembre mhm. te ref fête que je ref fête ka fa ando naye ka fête wel en famille peut être te ref ka ando naye wiin we xaƴna ka jeg kana cunga a sugo ngar men dépendre ina na in soom ko gar ka soɓ mene a may del mhm. ambiance fe ren a pamba ke ndik

kon nag waa Ndefleng réew am nañu vraiment tey contentement bu baax baax a baax. yow Ibrahima fees bu mu doyul rek dara dootu dara doy donc monsieur le ministre encore une fois de plus merci beaucoup. guidement nun euh, aussi na pokata al na nu mbokator na pour le développement de Niakhar mm-hmm. il faut ko koy def beram hay la xam tak wi do fen mit la kon ko waga le na lay xena xana lay ndu may jofa ay jala na ro kam ber men parce que wagi mu ñako ber men nu mboko tora nga def rew an win may ngeek programme ni am ten kuta dom na dom ku fi ko ma fetit wara mo gar boga an parce que te da te da nga rek na rabda mm-hmm. kene xam ne na xefam koy Am joxa nuun junni téeméer non lañ joxe cinq cent c'est comme ça pour kanu inu bada ka xenan na saxle kene premier rek ref parce que asini sinig jege fatik jege ñaxar jege tatagin fop ku ko ina fiya o kina waga tam den ka tam den am le tik wena mbaka fo wena ngima xam ka yalla togake a fiyangan koy num waago xana waago xana waago faaxna nun kene bugumala nun xeɗana nun sam roga damta nun jama jeg no basil ne mbaago na jam a siniga refa jam sénégal a jofa éducation sur cine tv santé sur cine tv l'actualité sur cine tv politique sur cine tv Sport sur Cine TV. Religion sur Cine TV. Culture sur Cine TV. C'est un écrit par Cine TV.